sooy seet yaakaar naa discours ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyu bi nuyoo bi monsieur le maire Mamadou Thiaw muy maire de la commune de Tassette di ci teg chef de village yi di ci toftal mboolem imam di ci teg mboolem responsable bi fi teew te ñu jóge ci village yi composé commune bu taset maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu àqu bu baax a baax a baax te di leen baal àq li may njëkkee ci ay kàddu rek moom mooy ay kàddu cant cant gi moo di ko dooree ci yàlla suñu borom subhanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di ci teg samay ñaari waajur di ñaanal sama waajur bu di gërëm président de la république son excellence monsieur Macky Sall di ci teg son premier ministre monsieur Mohamed Bun Abdoulaye John di ci teg le ministre des forces armées docteur Augustin Tine coordonnateur départemental de Thiès di leen wax ni ginnaaw bu yooyu yëpp wéyee ñun président def ñu chargé jox ñu ay poste muy man mii ak Serigne Gueye comme chargé de mission à la primature li tax ñu ni il faut ñu delloo njukkal président de la république ci taseet mooy lii mu ñu tabb dañu ni def fi mësul am yàlla ci mbaaxam ci gouvernance su président de la république yàlla tuddee ko mu amee fii ci taset yàlla jagleel ñu ko mu nekkee ci suñu tur wante taset moom cër su ma nee taset nag maa ngi ciy jiital ki nga xamante ni moom la fi yàlla teg mu nekk maire te ñu jàppale ni soxare wu ñu benn yoon yàlla moo dogal li mu dogal ñu di ko ci ñaanal fas yéene ko ci jàppale ngir mu am réussite ndax réussite du moom kese mais réussite taset la kon cër bi cëram la ginnaaw bi mu doonee cëru taset du sama cër man ndax waa taset ñoo ma def li ma doon kon taset la man ak sëriñ ànd nañu ci semaine bi yëpp ñuy def tournée ci biir département yi maa bi tournée bi li ñu ci gisoon mooy dañu jàpp ni en général ñi ci ëpp ñi ñuy nome te président di leen jox poste ngir ñu liggéeyal ko dañ leen di nommé ñi changé numéro ñi dem ba sex pour nga jot leen wala nga gis leen mu doon jafe-jafe ñun ñu ni président ci doxalinam rupture la woote jox nañu poste bi mais du pour ñun liggéeyal askan wi moo tax ñu jox ñu ko kon dinañ ci dem bañ jeex nekk bàyyi faalam ci mboolem loo xamante ni moo koy may ndam ndax jàpp nañu fii mu teg tànkam ci Sénégal du deltu ginnaaw te bu soobee yàlla taseet dina ci gis boppam lu ñu gëm la li ñuy wax biñ defee tournée bi wër mboolem communes yi nga xamante ni walla yi ci ëpp dem gisi maire yi fa nekk rawatina maire u yi wax leen lii suñu mébét muy doon bay falu parti bi ndax bëgg nañu senegaal gii ñu nekk mu nekk Sénégalu naataange ndax président liggéey la woote ñu ni nag ci loolu fase nañu topp ci ginnaaw képp koo xamante ni Macky sàll moom moo la ñor ndax fi mu ne nii weesu nañ ci élection local li yàlla dogal yàlla dogal na ko ki yàlla na ma jiital jiital na ko ñu ñaan yàlla yenn bi oyof ci kawam lépp lu mu yéeneel dëkk bi yàlla defal ko ko ci kattanam ak mbaaxam mu nekk lu yomb yomb lay doon ndax bu boobaa ñun ñëpp lay dellu dem naa ci moom ndax taseet laa gëm awma lu dul taseet wante jàpp naa ni président Macky Sall mii ma topp Sénégal moo ko itteel te fas yéene liggéey Sénégal suñu cordinateur départemental ci tànk boobu la taxaw te fépp fu mu ñu joxoon nañ fa dem

deux 2011 fii laa ko taxawee woon waxoon ko fi ñaanoon ko yàlla 2012 mu nekk président de la république te jàpp naa ne 2017 it incha allah yàlla dina jaar fi mu jaaratoon ndax yàlla dëgg rek la bëgg te dama koy faral di wax dëgg mooy loo xamante ni ku ko bëgg a suul yaay suulu kon nañu bàyyi intérêt personnel yi te ñu liggéey Sénégal bàyyi caaxaan yi. dañu liggéey Sénégal ndax président de la république kat loolu la woote dëgg la woote liggéey la woote wante it jàmm la woote ndax nitu jàmm la may wax ni parti bii di APR jàpp nañu ni ñun ndaw ñi ñooy mën a booloo liggéey ko yaatal ko ba mu taxaw taxawaay boo xamante ni ñëpp dinañ ko ràññee te ci biir taxawaayu ndaw ñooñu maa ngi ci woo mboolem ndaw ak foo mën a féete pare naa tàllal la sama loxo ñu liggéey ensemble ndax jàpp naa ni mbooloo mooy doole di ci woo mag ñi nga xamante ni xëy na yàlla dogal na ay responsable yu mag a mag lañu ñoom it ñu def comme ñun ndaw ñi wootante ci seen biir ñaaxante ci seen biir ndax président loolu la bëgg ndax xam nañ fi mu war a jëme Sénégal muy dëkk naataange dëkkul dëgg surtout ak it dëkkul liggéey ndax liggéey la woote ñu ngi sant bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ni ci élection locale yi jàppale nañ ñu te yéene nañ ñu ndax yéene bii la yàlla def mu sotti tey ba ñu mën a taxaw vraiment ñu kontaan sigi te kenn waralu ko lu dul président de la république may ñaan taseet nañu jàppale ku ñu jàppale seen bopp ndax euh, ku la dig ku la jox nga añ bu la diggee reer war nga ko gëm te président kat wàccoon na ak waa taseet ndax defal na taset loo xamante ni taseet mosu ko am mu teg ko ci ab ndaw teg ko ci jigéen kon war ngeen a gëm ni Sénégal président Macky Sall am na fu mu ko teg ndax lépp lu réeroon tey muy lu waroon a feeñ feeñal na ko lépp lu nëbbu woon mu waroon a nekk lu ñu taxawal taxawal na ko kon loolu waa Tassette delloo leen njukkal président de la république te ngeen tàcc seen bopp te ngeen xam ni fi président jëm ak yéen du ci chargé de mission donc te xam naa ko. ndax ñun ñi nga xamanteni ñun ñoo nekk ci seen kanam nekk seen dal nekk seen tànk nekk seen nopp ba pare di leen waxal fu ñu toog li jëmale taset kanam la ñuy wax ndax xam nañu ni loolu moo ñor président de la république loolu moo ñor premier ministre loolu moom moo ñor le ministre Augustin tin ndax nag bu ñu waxantee dëgg bu lëg lakkee commune bi trop président ñu ngi ci sa ginnaaw tey ak ëllëg lenn soxaluñu lu dul liggéeyal la du ndombo tànk du leneen li ñu bëgg rekk mooy taset gis boppam ci sa gouvernement te xam nañ ni doo wax muy deñ lan ngeen ci wàllu woowu dama ciy joxe exe dama ciy joxe exemple rek ci sama référence muy le ministre Augustin Tine ndax tey bu ma mënee taxaw tey bay woote tamit mën a taxaw tey ba ni taseetama ñor mën a taxaw tey ba ni bay faalu parti bi laay doon ci moom laa ko gisee ndax loolu mooy doxalinam may ñaan ñëpp rek ñu bàyyi intérêt personnel bi comme ni ma ko waxee bàyyi caaxaan bi te ñu liggéey ndax président Macky Sall loolu la santaane wootewul nit kuy xiiroo wala di tasaare ay doomu aadama ngir doon dara mais président dafa woote pour ñu booloo nekk benn liggéeyal ko te xam naa ne ci biir booloo boobu bu ñu ko liggéeyalee président dina am ndam ci 2017 ci département Thiès ñu ngi woo bépp responsable ak foo mën a nekk foo mën a toll di ñu dégg ci Sénégal bëgg nañu ñu jàppoo nekk benn derrière le président de la république ndax président loolu la soxla loolu lay séentu ci ñun te ñu ngi ciy woo mbooleem koo xamante ni parti bi itteel na la Sénégal itteel na la ndax gis nañu ni ci biir mbooloo rek la réussite mën a am ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla taxawu gi ngeen ñu taxaw yàlla na yàlla yokk seen fan mu ànd ak wér ak wér leen wasalaam chargé de mission à la primature et responsable politique à Tchanaba. Voilà, nous quelques semaines, quelques mois après les élections, vous, euh, votre collègue John, vous avez assuré le département aujourd'hui. En fait, quels sont les cinq que vous allez nominations et quels sont les défis que vous entendez Bon, moi et Khadijon, nous avons sillonné le département, comme vous l'avez si bien dit. À l'instant de notre responsable, le ministre Augustin Tin, qui avait organisé une randonnée pédestre pour remercier le président de la République. Nous aussi, en tant que chargés de mission, à notre manière, nous avons organisé une tournée pour remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement par le biais de son Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John, avec qui nous travaillons. Dans cette tournée, nous avons pu rencontrer le maximum de responsables de l'APER, mais surtout les maires, pour leur apporter l'appel lancé par le président Macky Sall avant bien même les élections locales, qui n'étaient pas suivies par beaucoup de collectivités locales. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus les élections locales, mais l'enjeu, c'est la réélection du président Macky C'est pourquoi nous avons essayé de rencontrer le maximum de responsables, parler avec eux, de leur dire ce que le président Macky avait dit avant les élections, de les rappeler à l'ordre pour qu'on puisse s'unir dans l'unité je pense que nous pourrons réélire le président Macky dès le premier tour. Je pense que pour le département, le président Maxal est en train de réaliser au niveau national d'abord, on parle de niveau national d'abord, les actes que le président Maxal est en train de poser sur les réalisations, la réduction des denrées de première nécessité, la pose de la première pierre de l'université de Djamnyadjo, la pose de la première pierre de la route de l'autoroute Thiès-Touba, ce sont les actes que le président Sall est en train de, faire et de montrer aux populations le plan Sénégal émergent. Mais les difficultés quand même existent euh, dans le département au niveau de Tienabadou comme au niveau de Bien vrai, il y a fortement des difficultés. Mais ensemble, avec le plan Sénégal émergent, je pense que nous allons au moins essayer de réaliser certains projets avec l'électrification du monde rural, avec vraiment euh, euh, euh, l'électrification du monde, du, monde, du monde rural le président Macky Sall aussi a dit aux populations qu'il ferait de telle sorte que les localités les plus reculées, nous essayons de les trouver des pistes de reproduction. Donc, je pense que la première chose pour qu'un pays puisse être plus développé, c'est l'enclavement d'abord c'est des enclavements d'abord. Le président Maxal Sall est en train de travailler avec ça dans le plan Sénégal émergent. Euh, bon, nous, en tant que chargé de mission, nous ne pourrons pas exactement vous dire si le président Macky Sall va réaliser ou ne va pas réaliser. Mais ce qui est sûr, nous, en tant que chargé de mission, en tant que responsable départemental, nous allons mener le combat en haut pour qu'on puisse sentir dans le gouvernement du président Macky Sall le, département de Thiès, c'est notre rôle. Dans le domaine de la santé également, il y a des postes de santé qu'il faut rééquiper et même au centre de santé. Bon, c'est vrai, dans le domaine de la santé, le président Maxal aussi est en train de faire des actes très importants. Parce que vous tous, vous sentez que les enfants de moins de 0 à 5 ans, aujourd'hui, à l'hôpital, ils ne paient pas de tickets. Le président de Maxal aussi en train de poser des actes très importants dans ce domaine. Donc, en grosso modo, tout ce qui englobe le plan Sénégal émergent, nous sommes prêts à accompagner le président Macky Sall dans ce but. Ici à Tasset, vous avez tendu la main au maire qui est un des Vous l'aurez affirmé Bon, ce qui se passe à Tasset est valable à Tchanaba. À Tasset, dans les élections locales, il y avait deux listes de la paire. Après les élections, le président nous a dit d'aller voir tous les maires, de regrouper autour de lui. L'essentiel, c'est que nous lui tendons la main. S'il vient, nous allons travailler avec lui. S'il ne vient pas, nous allons le trouver pour travailler avec lui. Merci beaucoup, c'est M. Hassan responsable politique à Pérangounian, conseiller technique du ministre des Forces armées. Je remercie d'abord tous les journalistes de leur présence par rapport à cette belle initiative que les deux chargés de mission au niveau de la primature ont eu à faire remercier le président de la République et le Premier ministre et également le coordinateur départemental, M. Augustin voilà des jeunes qui, depuis trop longtemps, se sont sacrifiés auprès du ministre Obisantin pour permettre au président de la République d'accéder au pouvoir en, en 2012. Aujourd'hui, ils continuent quand même à faire le même travail, à sillonner tout le département pour que la prêcher la bonne parole autour de ce qu'on appelle le Sénégal émergent. Par rapport aux différentes doléances qui, euh, ont été déposées au niveau de TACET, en tant que conseiller technique du ministère des Armées, je suis un témoin de tous les actes que le ministre est en train de faire et toutes les revendications que Khadidion, donc euh, par le canal du chef de cabinet Marcel Dion, est en train de poser au niveau du, départ, au niveau du du ministère. Par exemple, en ce qui concerne euh, l'électrification rurale, nous avons un dossier qui est exclusivement réservé à Tasset et sur lequel le ministre est en train de faire beaucoup de travail pour toutes les localités en profondeur de d'asset puissent accéder à ce qu'on appelle l'électrification rurale. Sur ce qu'on appelle les pistes de désenclavement également, donc nous avons repéré dans l'ensemble du, territoire départemental de Thiès toutes les localités qui sont confrontés à des problèmes de désenclavement pour les repérer afin qu'il y ait ce qu'on appelle des pistes de production. Sur le domaine de la santé également, chaque fois nous recevons des dossiers donc, euh, qui expriment les doléances des différentes populations au niveau du département. Pour vous dire tout simplement, donc en tout cas la volonté de prendre en charge les préoccupations du département. Donc sont là. Et est la mission du coordonnateur départemental. Il est en train de faire des tournées depuis très longtemps. Récemment, il y a un an de cela, des tournées avaient été réalisées au niveau départemental. Et d'ici peu, dans quelques semaines, nous allons donc reprendre ces tournées pour s'enquérir des doléances de la population, et tant soit en fonction de nos possibilités de poser les doléances afin que le président de la République en 2017 puisse avoir des acquis qui pourront persuader et séduire la population afin qu'on puisse lui euh, donner un second mandat dès le premier terme. Nous travaillons d'arrache-pied pour que ce soit réalisé. L'axe longtemps... Effectivement, c'est une vieille doléance donc, qui a été réitérée par la population de Tasset. C'est une vieille doléance également qui a été posée au niveau du gouvernement et sur laquelle, sur laquelle le président est en train de travailler. Il a donné des instructions fermes à, à l'autorité compétente afin que des, une étude soit faite pour que d'ici 2017 que des jalons soient posés dans le sens. Et j'ose espérer quand même que ces institutions seront suivies et que d'ici 2017, la population Tasset verra les premiers jalons de la réalisation de cette route qui pose beaucoup de problèmes, il faut le dire, à cette population. Voilà.